ngi leen di nuyu ku ci ne sa tural sa sant di la jox sa wàccuwaay sa doom sa jarbaat madame Ndeye Tické Ndiaye Diop moo ñëw fii tey ci suñu kër papa Ablaye Ngom ancien gendarme nekkoon fii Thiès bokk ci habitants yi nga xam ne ñoo jëkk a dëkk Mbour kon Fallou vous avez la parole merci beaucoup. waaw ginaaw ba ñuy sant yàlla di julli suñu ñaari waajur di am mbégte ak contentement di recevoir ki nga xamanteni moy madame ndey Tika di directrice de l'ANAM di la dame d'affaires la lion ñëpp xam nañ ni Ndiaye jaata Ndiaye kenn moy moy borom all bi di am mbekté ci ñëw bi gën fi di kontaan ci di delo ñëpp njugal di len bal ak di len balu ak man nak tay dama am mbektel ndax lu tax kii di sama yaay mu fiy ñëw waaye lool it sag la te sant la ndax booy ànd ak ay gone chaque jour di daw di ñëw di ñëw ci yow yelloo na kat nga daal di ñëw comme nii nga def daal di ñëw kon loolu tamit sant la dañu koy sant bu baax dina ci delloo njógal waxoon nañ ña ko dina dinañ ko waxaat ay jeunes lañ ay jullit lañ dëkk ci koñ bi nekk ak suñuy yaay booy nek ak suñuy kilifa di suñu papa muy pa ablay Ngom di ñaan yalla yalla na ko fi yalla yagal ñun nak koñ bi dañoo solidaire ya pa mal de politiciens yu fi ñew di wax waxi politiciens wa dafa fekk ni ñun ci képar bu ñuy doxantoo suñu kilifa di pa ablay Ngom daam lu ñu gëmloo du ay juromi nyari du ay ñaari deureum moo tax ñuy topp doomu aadama dafa fekk ni ñun ab taalibe lañu ci la ñuy yar ñu yar ñu ci taalibe mu yar ñu ci bañ ne ar comme doo ñëw nit du jóge fale di ñu gëmloo ay ñaar dërëm wala ay juróomi dërëm pour ñu topp ko ci ay kàddu yu góor la toppee boo dee fàttaliku boo dee fàttaliku ba ñuy recevoir sa bureau am na nuñ jotoon a waxtaan wax la ni ñun ay xale lañ waaye ay xale am ñam lañ duñu benn sàmba boo xamante ne dañuy taxawaalu koñ bi moo ñu ñor ñun dofuñu xam nañ président Macky sàll mi nga àndal di liggéey lu mu def ci réew mi balaa maa génn dëkk bi damay ñëw ci estad Lat Dior bii nga xamante ni moom la ñu ñëpp bokk di doon loo xamante ñoo ko bokk boobu ba tey ñoo ngi koy tëj yàgg na bañ ko tëjee xale yi amatuñu benn fu ñuy defee sport waaye su ma juumul dimanche bii incha allahu rabbi ci lañ koy inauguré kon loolu sagg la kon loolu dañ ciy sant yàlla ba ñu booleek président Macky Sall. damay yàgg a woteel Mati Macky bokk ci ñi ko fal ginnaaw yàlla. moom ba tey saa bu wootee moom laa sànneel moo ma déggal ci kër gi kontaan ci moom ndax damaa fekk démb ndax indépendance bi fii la ma fekk ma fekk ma gab jëm ba samp kër gis président yu bari jaar fi Senghor ci sama kanam la falu ci kanam la bàyyee Abdou Diouf ci sama kanam la falu ci lay bàyyee Macky Sall mi ci sama euh, sept ans mi ci la ma fekk eh, waaye yàlla defar ko chance président yi fi jaar yëpp jàmbaar la waaye moom wërsëg bi ko yàlla defal amu ñee amuñu ko bari mu def kenn defu ko fi kenn defu ko fi moo tax ma sawar ci si parte ko ak képp ma déggal waaw euh, seen tànk yi nag yàlla na ko yàlla def ci jàmm defarteel ko li ngeen di bëgg yàlla na ko ko yàlla defal ah, man de maa ngi ñaan fu ma tollu moom maa ngi ñaan yàlla ko yàlla defal làmb lu réer lu wér lu wér jërë ngeen jëf sant la bu baax a baax comme papa ñu ngi lay nuyu papa ngi nuyu sa famille yépp ñi ngi nuyu xalé yi muy Serigne fallu waye ñi ngi nuyu mustapha di nuyu Ibra du Ibrahim. Ibrahim voilà di nuyu sa njabot yépp jigen ñi ak goor ñi dama ex sax fekk sama mbokk xam nga Sénégal benn la rek waye nuyu wa koñ bi yépp ñi ñëw Euh, dikk fii ñëw di ñu teertu ànd ak waa kër gi lii mooy senegaal di wax ne rekk am naa mbégte ñëw sa kër ndax damay jëf leen teg sa ay doom booba xaw ma sax na ni laa dem ak ñoom waaye bi ma leen gisee xam naa ne xale yu ñu yar lañu xam naa ne xale yu am yar te xale yu jóge fu baax lañu parce que nag li ñu ma wan mooy ngor li ñu ma wan mooy yar waaye li ñu ma wan mooy surtout dignité te loolu dama koy ràññee ci nit di ko faral di ràññee ci nit donc mën naa wax ne que ne ñëw bii dafa war ndax bu dul ñoom it di yéen ba ngeen xam seen doom kan la nekkal ñëw bi nag nee naa leen saafonte la xam bi may ñëw xam naa ne fii mokk na waaye nag mënul ñàkk parce que nag waaw góor day tax nit ki gën a mën a góor góorgóorlu gën a mën a sawar moo tax ma ne ma ñëw échanger teg yéen saafonte ak yéen euh, gën a ñaax ndax euh, élection bi yamul fii dafay dem ba ci biti am ngeen yeneen i nit yoo ngeen xam ne xam ngeen ko xam ngeen leen euh, xëy na am na ci ñu ci sopp président xëy na am na ñoo xam ne xamuñu ko xamuñu li muy liggéey donc ñooñu dañ leen a war a convaincre président nee na bu ñu rejeter kenn nañu waxtaan ak nit ñi di leen convaincre ci moom li mu def di leen xamal li mu def wax nga ko léegi président bu nekk jaar na fi waaye bii mosuñu ko am président bu ne kenn du yokk euh, denrée de première nécessité yi moom moo koy jël di ko fay man de mosuma ko gis ndax ba mu jëlee rek loolu la njëkk a def wàññi prix yëpp ba pare téye ko foofu prix day dem ak di ñëw inflation baril pétrole bi yokku na te ku xam ne ku nekk xam pétrole xam ne bu yokkoo lu bare dafay yokk waaye mu ni man dama yërëm sama askan loolu duma ko laal te noonu la ko téye boobu ba tey et à quel prix waaye nit ñu bari xamuñu loolu wax nga ko léegi dafa ñëw indaale chance te yeen ñi nga xamné ne mag la da wax ne même jabar sax dañ ko wara xol ak kër asumaak nak président de la république kon mom man indi na mandarga bo xamné ne mandarga kuy développer réew la mandarga euh, koo xam ne que né dafa indi wërsëg nak nga koy xamé pétrole ak a ci Sénégal waye ci mom la ko yalla feñalé Euh, joxe jumtukaay yi nga xamne mom lañ koy exploiter lolu dafa di lo xamne nit ñi war nañ ci petrol lu bari parce que nak pétrole dekk bu mu am naataange am na fa kon te mom dafa dem ni mu ni disparité sociale yi dama koy dindi waye damay ñew indi équité xam nga lolu dafa bax ci rew mu ni pétrole bi dañ koy gérer ak transparence pétrole bi dañ koy gérer comme ni ko état de droit war a euh, sayto war a gérer mooy lan mu def cadre de concertation indi cos pétrogaz d'ailleurs daf ca teg doomu Thiès bu ñuy wax usmaan Ndiaye moo ca nekk ba pare yamul foofu mu ni nag damay def cadre juridique mu def cadre juridique bi pour que ni ñu koy amee ni mu toll fu xaalis bi dugg fa kan moo ci am droit mu ni nag dañ koy dello ci économie bi ba paré nak am lo xamné dañ koy dencel les générations futures wax ngeen ci ila touba be yi fi xew yépp der bi boy wax ba suba do ci do pare man damay jëm di wax way yeen say damay son ndax président limu def mom même ñun ñu nekk ak mom da ngay dem ba yag da ngay jaxlé kon lolu dañ koy santé yalla di wax rek ne

ci ginnaaw loolu nag ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm yow Ndeye Tické parce que man dama bëgg jigéen ju am fulla te fulla te fekk ci yow xoolu xaalis jom moom lañ la woon ndax foog na ne ñun de ñun de sunu koñ bii mu rëy mu tuuti jom lañ ci bëgg ndax budé dee bu ndaw sax day tak ndigam pour fas defante ak ñun kon ñun ñii bo fi ñëwoon tay ci suba tay tey ci bëccëg di nga ñu fekk ñu tek suñu euh, suñu avec diko ki di ci def lu dara jarul alaykum mbolo mi ma ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di rafetlu tay jotaay bi waaye balaa may xuus damay jéggalu ndax yàgg ngeen fi te lii dafay find rek seen gëm-gëm ak seen pësteef ñun xam nga politiciens yi dañuy jàdd fenn rek foofu ñu tànc la fa doo mën ñëw loolu mooy indi lii waaye bu dee ci cadre liggéey lii doo ko mos a gis ci Ndeye Tické toog di xaar te doo ko gis heure bi nga ko war a gis waaye nag tey nii la demee. ginnaaw nag ñu ma jéggaloo maa ngi nuyu ab sa puy di nuyu mama si di nuyu Ndeye Roxee nekku fi maa ngi nuyu Jeynaba euh, la lañu wax Xadi ak euh, Binta Gueye nekk fi tey ak képp ku fi toog maa ngi lay nuyu si tur ak sa sant di wax nag rek ne tey doxu mbokk la doxu xarit la ay jéego saafante ak yéen la moo tax mu demee nii dama ne xale yi da ngeen leen da leen di woo rek ñu dem pour bañ leen sonal ci dara ñu dem rek fekk leen foofu waxante ñoom continuer feneen moo tax format bi man maa ko sàkkoon mu demee noonu euh, li ci des nag mooy dafa am loo xam ne dañu koy jublu jublu bi mooy lan mooy vote voté le président moom moo soxla le 24 février 24 février nag ñëw na ba pare euh, du tey lañ koy liggéey dañuy ñaax rek waaye dañuy seet ñi nga xam ne que ne suñu wóor ñu ngi koy liggéeyal di ko jaarale ci ñun ñu demaat ci ñoom wax ak ñoom pour ñu moom seen bopp ñu gën a mën a duggaat ci nit ñi ndax yéen seen ay carte ñun xam nañ ne président Macky Sall ngeen koy jox waaye am ngeen ay mbokk am ngeen ay xarit am ngeen ay àndandoo xëy na ñoo xam ne xamuñu li président makisal Sall di def seen conviction des na wala yàq nañu seen xel ñooñu am ngeen yéen sañ-sañ ak devoir dem wax ak ñoom ne leen Macky Sall nii la mel nii la mel lii la fi def parce que nag li fi def mi ngi nii ñëpp gis waaw li mu fi moom li fi def moom président ñëw na fi ba tàyyi ñetti président yi ñu am naam liggéey nañu waaye li liggéey yëpp Macky Sall doublé na ko wala mu triplé ko ci sept ci juróom-ñaari at ci sept ans foo laal laal na ko sama sœur Absa wax na léegi nee na jotaguñ si da ngeen di jot ndax président Macky Sall géej la géej la kon da ngeen jot seen wàll dafa ni lépp mënul xas xëy sotte doo pour ñëpp loo gis projet la da ngay dérouler muy am processus bu teyee ñii am bu ëllëgee ñee am muy dem di dem di dem ba daal di baawaan daal di law dafa mais président moom li mu yéene jigéen ñi surtout jigéen ñu mel na yow ak ñi nga àndal ku nekk xam na seen bravoure léegi dama jóge ci benn dañuy jigéen ma ne leen jigéen ci Sénégal ku ko defal man nga defal waaye ku ko defal président de la république nga ko defal lu tax Eh, jigen ni ñoo yame ñoo amé kër yi jigen ñi amé njabot yi jigen ni ñoy ëmb jigen ñi ñoy nampal dama dem ben bes ndar la won bobu ma ngi nek xalé eh, xalé di sogo commencer liggéey ma and ak sama ministre ñu dem Saint-Louis dem ci geej gi ñi waxtaan ak ay eh, ay transformatrice ak ay pêcheur ñu demone fofu di waxtaan muy waxtaan bu mak mu am benn góor bu jël parol mu ni moom mën naa wax ne ñoo ngi fii ci sama kër yaay mère Hélène Ndione suñu kër frère Joachim Ndione ak suñu sœur Colette Ndione ñu ngi kenn ci madame Ndeye Tické Ndiaye Diop depuis bi mu wàccee ba léegi ñu ngi muy taw muy naaj muy guddi muy bëccëg ñu ngi jàpp ci liggéey bi vraiment Joachim nekk ku jàmbaare sama yaay Hélène fan yi paase amoon na tiis bu fi amoon ñu ngi la koy massaw waa kër Adja Ndeye Tické Ndiaye Diop ñëw nañ fi indi seen njaxal moom tamit mu ne loolu doyul damay solaat sama tànk ba fii ñëwaat ma masawu famille bi saafonte yee xam ne ñoo bokk tiis bi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay Joa nag nekk frère bu stratégique ku baax manqué nga ñu nag franchement parle manqué nga ñu trop Joachim parce que vraiment muy taw muy naaj muy guddi mu bëccëg tout le temps yaa ngi ci yow mais yaakaar naa ne nag vraiment li leen dal mënuñu ko booleeg leneen kon sama yaay booy ñoo ngi leen di masaw bu baax a baax sa doom manam Ndeye Tické Ndiaye jóob di sœur ci Joachim ak Colette mii moo ñëwoon fi ànd ak magam ju baax ji madame Mati Ndiaye Femme ak ay xarit xarit jeunesse bi ñoom ñëpp ñu ñëw vraiment saafonteeg yow bokk wan la ni ñoo bokk tiski ñoo bokk naqar bi ak sëñ Khalifa Ndiaye mi nga xam ni moom tamit di kenn ci madame Ndeye Tické Ndiaye kon daal yaay booy ñu ngi leen di masaw baax kon kàddu gi ñu ngi jox Joachim mu daloo ñu bu ñu paree jox toilette app ñu jox suñu. nekk maa ngi lay nuyu sa tour ak sa sant euh, di gërëm vraiment sant yàlla bu baax di gërëm ndey tike di gërëm sama maman mère Mati di gërëm délégation ku ci nekk di la jox sa wàccuwaay euh, di sant yàlla aussi parce que olof Ndiaye nee na nit booy ànd ak moom bu neexee nga gis ko bu nakaree nga gis ko. te yàlla def na euh, bi ñu nekkee ci des moments de difficulté yónnee na délégation ñëw nañu saafonte ak ñun séddoo ak ñun tiis bi loolu ñu ngi leen ciy remercier bu baax a baax a baax di teg yëpp ci loxo yàlla euh, di di xam ne yàlla moo ñu ko joxoon moo xëy tey nanguwaat ko yàlla fi mu dem na ko gënal fi mu nekkoon euh, suñu sœur la sama sœur la ko takkoon ci man la mais je dem ba ne ah devant li yalla li yalla bëgg man mënuma ci dara ay ñaan rek wala def lenen ñun duñ ci mais su sont non rek sant euh delsi vraiment di len ñaanal yalla tank yi ngeen fi dox mu doon euh, li ngeen ut moy vraiment yalla may ñu ñu le 24 février Yalla may ñu am ndam ni ak euh ñi wa koñ bi wa koñ bi ñu ngi ils étaient là tous ak ñun and ak ñun motax tay bi da ngeen ah fi si ñu ni bokk yow ak dalal donc wa koñ bi aussi merci beaucoup waaw donc vous euh, lay mëna jéxalé sama cadeau vraiment di remercier Tata Ndeye Tické bu baaxa baaxa baaxa baaxa

ndamu Macky Sall nekk suñu ndam ñun ñëpp te moo nekk ndamu Tata Ndeye mooy nekk suñu ndam ñun ñëpp bu nekkee suñu ndam rek bu soobee yàlla li nga xamante ne sama frère bi moom la mbëbët bëggu ko ci koñ bi defe naa yow doo ko ko xañ moo tax daal ñu bëgg a jàpp te dinaa wax ci beneen affaire ñun fii communauté bi yëpp ay catholique lañu ñun on doit rendre la monnaie au président Macky Sall ci on doit rendre la monnaie au président Macky Sall parce que président Macky Sall ba mu faloo ñun communauté catholique ci la ñu a gis suñu Sénégal président Macky Sall président Macky Sall moo ñëw bu Sénégal nu mu day mu dugal ci ay moyens véhiculer suñu yi dem ba sanctuaire di def leneen ak te bëgg nañu nag mu falu ndax loolu yëpp mën a àgg mais nag ñun dafuñu nag bay woteel keneen nag di suñu yooyu di can vraiment ñun daal man loolu sa tenais à vous dire moo tax ñuy daw suba ngoon guddeeg bëccëg lu ñu mën ñu ngi koy def si koñ bi vraiment ñu ñu ñu mën nag ñu ngi koy def si koñ bi ah ñi fi boofu nag ñu ngi fi waaye bu soobee yàlla du ñu teree dem tandiki tikkeel ak li ñu ñaan maire yi ku fi dem fu ma proximité tey damaa envoyé Mariam Kassé vidéo bi

maa ngi nuyu ku nekk ci tur ak santam je dirais pas que am naa mbégte ñëw fii parce que bëggoon naa fi ñëw beneen ñëw bu dul bii mère Hélène sama xarit sama soppe maa ngi koy nuyu bu baax euh, di ko wax ne euh, yëg naa yëgeelam ci man ak cofeelam ci man di nuyu Joachim bu baax baax baax baax di nuyu Colette di nuyu dëkkandoo yi di nuyu famille bi ku nekk maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant tey nag du bésu bànneex bi naqar amee dañuy nangu ne naqar moo am di wax ne maa ngi partager ak yéen lii nga xam ne que ne dal na leen bu doon sama sago bi mu amee man maay toog ak yéen ba mu jeex pour defal leen waaye nag nangeen xam ne naqar bu ngeen ci am am naa ci bu toll noonu bokk naa ko ak yéen moo tax ma ne balaa ma fay ñëw na xale yi ñëw délégation yi ñëw ñu ñëw toog ci wetu joie xamal leen ne que ne ñun ñoom ñun ak yéen ñoo bokk naqar bi lii nag dafay am man dund naa lu mel noonu plusieurs fois donc su dalee ci nit damay xam nu muy nu mu mel lu metti dal na waaye nag yàlla dafa def ku nekk ci religion bi nga nekk da ngay am fois te fois daf ñuy euh, dimbale ci lu ne parce que nag ku xamul booy juddu booy demit mën na am na doo ko xam ku nekk ku yàlla bind daf la jox benn durée de vie muy garab di mala di nit dañu ñaan yàlla bu ko nit di dem mu dem ci anam yu yu yu rafet ay mbokkam defar ko ay mbokkam jébbal ko boromam tey ñun xamuñu suñu ëllëg lan la waaye moom yàlla def na mu jóge ci ay loxo ngeen depp toppatoo ko defar ko ba mu jébbal ko boromam ngeen des di ko ñaanal li ñuy ñaan rek mooy yàlla na rëcc lu mu fi doon toogee yàggu fi sax waaye fan yi fi def yàlla na rëccu nekk ne waroon naa gaaw a dem loolu mooy lam mooy yàlla na giseeg boromam yàlla na giseeg sam ki nga xam ne que ne moom ngeen gëm ah li ci des mooy muñ ñi fi des yàlla jox leen xolu muñ ñi ngi leen koy jaale bu baax di wax maa ngi naan meer xam naa li la dal du courage waaye loolu sax doyul waaye nag yàlla na yàlla jox euh, xolu muñ yàlla mooy jox xolu muñ te yàlla yërëm ko euh, xare ko àjjana Joa manqué nous, c'est vrai mais marquer. marqué deuxième parce que dafa metti donc moi je respecte ça tu observes le deuil lol fait li ñu euh, soxal am koy marqué bien que nak euh, manqué nga na observer le deuil man lool la gëm euh, di parce que dama ne won bu du politique ñu ñaan rek suñu président gagné Colette gis naa wax ju rafet yi gis naa liggéey bi bu Joachim toogee itam yaa am na loo xam ne yaa ngi koy def bu baax te ñi ngi koy yëg noonu rek la àddina li ci des daal mooy ñaanal le président Macky Sall mu am ndam ah, ñun ñëpp li ngeen wax dégg naa ko effectivement noonu mu def ci jàngu bi moom la def ci euh, këru diine diine lislaam yi kon ñooñu itam loolu la ñu wax li ngeen wax la ñu wax lu fi musul am am na fi président bu jóg jël këru diine yi teg leen këru jàngu bi jox leen seen gëdd kon nit bu amee lu mu amul woon day wane pëstéefam wane yéeneem wane ñaanam li ci des yàlla moo ko amee yàlla na ko yàlla jox ndam maire maa ngi leen di jaale bu baax a baax a baax wasalaam merci